fatiha benn yoon inna anzalnaahu benn yoon qul yaa ayyuhal kaafiruuna benn yoon lixlaas te xul huwallaahu ahad benn yoon ñu bamtuwaat ko fukki rakaa lay doon rakaa bu ci nekk fatiha benn yoon inna anzalnaahu benn yoon lixlaas benn yoon qul yaa ayyuhal kaafiruuna benn yoon kon mbokk yi ñu ngi leen di jox di daje ba beneen yoon incha allah riwal madadi